gërëmaat ñëpp di gërëm bu baax waa comité d'organisation bi ci njiital sëñ Sidi nga xamante ne ñoo ñu bindoon lettre pour sàkk si ñun suñu teewaay pour organiser li ñuy wax CLD comité local de développement tey nag CLD bi fi la ñu ko defee ci mairie Mbacke Kajoor bu ñu fiy ñëw ànd nañu ak chef de service yëpp yi nga xamante ne yaakaar nañ. ne dinañ am taxawaay ci màggal bi màggal bi ci fàttali màggal gi mu ngi am ñeenti fan gannaaw korité euh, yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm bi ñu fi toogee comité d'organisation bi wax nañu ay besoin maanaam lu ñuy soxla ci bés boobu ci wàllu kaaraange ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu également li nga xam ne mooy lépp loo xamante ne taalibe yi dañ ko soxla ci euh, bésu màggal gi wala lu ko jiitu wala bés yi topp ci moom naka noonu wàllu courant wàllu ndox ci loolu nag service yi nga xam ne ñoom lañu àndal joxe nañ ay tontu bu dee ci wàllu sécurité commandant brigade gendarmerie jël nañ engagement ne dina def kémtalaay kàttanam ba nañ doon def bu yokkul du wàññeeku ci wàllu éléments yi ñu indi mais également ci wàllu accompagner comité d'organisation bi pour yombal dem beeg dikk bi nga xamante ne taalibe yi ñooy ñëw fii wala ñooy génn pour dem fenn loolu nag tekkiwul ne contrôle du am dinañu contrôler lu jar a bàyyi ñu bàyyi ko lépp loo xam ne it am na indi lënt-lënt dinañ ci jokkoo comité d' organisation bi ba xool ni ñu ko lijjante waaye rek euh, ñu soññ ñaax taalibe yi ba lu ñuy tere wala lu ñuy bañ ci wàllu lu nar indi gàllankoor ñoom it ñu jël seen ay matukaay su boobaa dem beeg dikk bi dina gën a yomb sapeur pompier dinañu taxaw ni ñu doon taxawee euh, bu njëkk sapeur dañu jóge ba Kébémer di ñëw saytu bés yu mel nii fii. ci Mbacke jor wala lu ko léegi alhamdulilah am nañu benn caserne bu nekk si Daaru Muxti bu am ay éléments yu doy am matériel bu doy ñoom dinañ taxaw nañ doon taxawee ci wàllu ambulance pour couverture sanitaire bi mais également si wàllu du ñuy jàppale askan bi ci fexe ba ndox mi bañ a manqué noonu la it waa eaux et ci li nga xam ne mooy seen liggéey ci wàllu matt wala këriñ yemb dinañ ci taxaw mais également dinañu fexe ba lu ñuy soxla ci mbirum permis maanaam lu lay lu lay may yow nga wuti mat te doo am benn jafe-jafe ak yoon bu dee fii la bu dee ci wàllu département bi wala région wala ban national chef brigade bi taxaw na ne dinañu accompagner comité d'organisation pour jàppale leen service d'hygiène it moom it ci wàllu wér-gu-yaram lay yëngu wax nañ ne opération yi nga xam ne moom la ñuy faral def ci bés yu mel nii bu amee muy wàllu pompe wàllu puudar dinañ ko def ànd ci ak waa mairie ci wàllu jàppandal ay moyens yoo xamante ne dinañ liggéey liggéey boobu waaye nag am na loo xamante ne mu ngi fi loo xamante ne ah jàpp nañ de buñ ci taxawul mun na indi jeexatal bu xaw day waar ci màggal gi muy mbiru yàmb yooyu ñu wax nga xamante ne euh, li ñuy wax service d'hygiène mooy ñu def ko mission spéciale ñëw fi saytu ko xool béréb yi mu am xool yan jumtukaay la ñuy soxla pour jéem a dindi euh, mbirum yàmb yooyu balaa ñuy wax sax waxu màggal loolu it chef brigade bi dina ci ànd ak maire taxaw ci mu baax a baax euh, bu ñu génnee ci service yooyu des toujours ci wàllu seet ak kaaraange dañuy wax wàllu euh, set setal propreté rek nga xam ne bànqaasu mbuur bi fi nekk ñu tuddee ko SONAGED te bu njëkk moo tuddoon ICG euh, sunu borom it xëcc ko ba mu ñëw ba fii ci suñu arrondissement bi ndaxte presque bu dee juróom-ñaari commune lañu am mun nañ ne ñu ngi si ñetti commune yi Daaru Muxti am na waa coordination am nañu waa ICG yu fa nekk euh, Daaru Manaan également am na donc ñaari commune la jubbanti ko mais ku nekk Daaru naan nekk na Mbàkke Kajoor moo tax kiy jógee Daaru naan ñëw fi tey dina rendre compte bésu set setal bi ñu taxawu ko Eh, fexe ñu am ay matukaay yu jumtukaay yu baax si wàllu tracteur ak wàllu pelle pour jàppale comité d'organisation bi ci xeex euh, bërëb yi nga xamante ne dafa am ay taq-taq bërëb yu set yi nga xamante ne dafa tilim euh, wàllu santé nag docteur dina taxaw nu mu doon taxawee ci wàllu yokk ambulance yokk personnel sant nañ ko it mu fexe jéem a bind lettre pour yool wàllu médicament yi nga xamante ne dafay laaj ñu ful ko parce que bés la boo xamante day bëri mbooloo buy ñëw lañ si laaj ci wàllu koppar ci médicament ci ay garab ñu bataaxal boobu kilifa yi teel ko jot su ko defee ñu teel ko lijjanti waaye moom engagé wu ne daal ne dina fexe ba luy poste médical avancé maanaam benn centre de santé moo am fii ci euh, biir Mbacke Kajoor dinañ fexe jegal askan bi bërëbu fajukaay yi loolu ñuy wax poste médical avancé si ñaari site yoo xamante ne euh, comité bi dina ko saytu wax ne fii ak fii lañ ko bëggee ci wàllu garab yi nag dañ teel bind pour ñu teel a am lu ci lu ci lu ci mot ci wàllu Senelec ñoom it courant wax màggal wax courant demande yi nga xamante ñoo fi nekk ñoom engagé wu ne ne dinañ fexe ñu satisfaire ko balaa màggal gi waaye ci wàllu extension nga xam ne mooy yokk courant bi pour fexe ba mu egg ci bërëb yoo xam ne nit ñi de bëgg nañ fa tabax ñoom it dinañu fexe ba jàppale comité d'organisation bi pour loolu mun a mun a yemb hors délestage moom mooy fexe ba courant di am juróomi fan balaa màggal gi gën nga ñaari fan bésu màggal gi ak li ci topp ñoom itamit waa Senelec engagé wu nañ ne dinañu jàpp ci loolu bu baax a baax euh, ku wax màggal aussi wax wàllu euh, jëfandikoo ay ndawal donc moo tax chef de service élevage bu nekk fii nga xam ne moo boot commune bu Daaru Marnaan ak bu Mbàkke Kajoor moom it àdduna bu baax a baax ci naka la nit ñi war a bàyyee xel li nga xam ne surtout mun na indi ay jeexital ay loraange ci wàllu wér yaram te léeg-léeg nit ñi duñ ko bàyyi xel ci wàllu ay ginaar yi nga xamante ne dañ leen ñàkk te it fekk waruñ ko jëfandikoo nag walla xar yoo xamante ni indi nañ ko ci anam yoo xam ne dëppoowul ak ni mu war a mel ci wàllu transport jur yu mel noonu donc euh, soññ na daal taalibe yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu terewul dina accompagner comité d'organisation bi pour jàppale leen ci wàllu saytu ndawal bi euh, balaa ñuy lewatal jur gi buñ ko lewatalee même après ñu xool bu baax a baax euh, ndawal googu nan la mel moom it wax na it ne bëri na ay dawkat yu ñu nemmeeku fii ci commune bi dina aussi aussi liggéey ak waa maire yi su ko defee ñu jéem a def opération boo xamante ne dawkat yooyu dinañ fexe mu wàññeeku bu baax ci ci biir euh, commune bi Darou Mouhty monsieur le maire nag nga xam ne moom daanaka moom moo ci commune am lañ nekk moo jaboote ñëpp moom it wax na yéeneem ci màggal dina accompagner bu baax a baax comité d'organisation bi accompagner service technique yi mais it ànd ci ak conseil départemental nga xam ne it moom it beneen collectivité la boo xam ne moom mu ngi au niveau Kébémer pour ñu accompagner jàppale bu baax chef de service yi pour seen liggéey mun a mun a mun a mën a yem kon euh, sëñ bi service yi daal ci gàttal ñi ñu àndal ñoom ñëpp engagé wu nañ pour jàppale comité bi pour bés bi nañ ci doon taxawee dara du ci wàññeeku bu yokkul du wàññeeku yi nga xamante ne ay service lañ te nekkuñu fii ci arrondissement bi wala nekku ci département bi dinañu aussi fexe jébbal suñu bataaxal préfet département bu Kébémer bu dee service bi Kébémer la am ñu lijjanti ko foofu bu amul it moom leer nañu ne da koy jàllale ba ci madame la gouverneur bu Louga dàquñu sax ba bataaxal bi dem ba ci niveau national pour euh, accompagner euh, jàppale bu baax a baax comité d'organisation bi nañ ko doon defee ndaxte ni ko sëñ bi waxee rek bés bu màggal la bés bu rëy la boo xamante ci yoonu murit dañ ko bàyyi xel kon nag ah ñu euh, sàkku ngeen ñaanal ñu rek yéene yooyu yëpp suñu borom motal ko ba ni ci doon taxawee ñu gën a tax taxaw lu mel lu raw loolu di jaajëfal sëñ bi si ñaan yi nga xamante ne it ñaanal nañu ko pour euh, sunu mission yi gën a gën a gën a gën a yomb bàyyi xelit kilifa yi nga xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi fi woon ak ñun te tey yi nekkatuñ fi eh, wax dëgg yàlla daaw bu ñuy taxawal bis bi def naa ne sëñ Moustapha moo fi nekkoon eh, donc yàlla na yàlla yokk ay leeral taas ñu si barket waaw ñun de jotoon nañ ko xam jege woon nañ ko loolu loolu loolu nga wax it moom moo nekk ci moom moom ak ñi ko jiitu yëpp yàlla na yàlla yokk seen ay leer eh, kon daal loolu moo nekkoon ci tënk li nga xam ne moo ñu indi woon fii di jërëjëfalaat bu baax a baax waa comité d'organisation bi di woowaat bu baax a baax chef de service yi mais ñu gën a bàyyi xel bés bi lu maire wax moom moom ñun noonu la ñuy liggéeyee bu ñu xasee génn fii moom téléphone yi moom du ñu noppalu dañ ne ah caam UCG fu fu oto yi toll lan nga wax ci chef de service maanaam duñ dañ leen di loolu mooy suivi parce que it mën nga génn fii surtout weeru koor lañ nekk ñi sant jàlloo kan yooyu koor gi bu ne leen jàppale la ñuy ñu fàtte waaw mboobu moom xam naa ne moom sa bureau bi moom ñu ñoo ko inauguré loolu a <laughs> bureau bi la maire accompagne bi incha allah dinañ ñu occupé woo di jaajëfal ñëpp bis bi nag moom niñ ko baaxoo def moo di ñeenti fan yi korite gi ci la suñu Mbàkke Kajoor ganale woon Cheikhul Khadim Bamba suñu yaakaari tey ak ëllëg fii ci dëkk bi bi jugee ci géej gi mu ñëw fii seet si ko ginnaaw bi ñu jugee sa nuusi am fa ñaar fukki fan ak juróom bi mu wooree li ñëw fii ci ñeenti fan yi korité bi am fi ñaari fan ba ko ñetti bi soog a dem ngan googu nag suñ Mbàkke Kajoor doon defal Serigne Touba te Cheikhul Khadim ñëw ñëwoon fi seet si ko bis boobu la ñuy màggal ngir di def ci itam euh, ak ñaan ak barkelu suñ Mbàkke Kajoor nag mooy rakki Serigne Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali mooy wajur Cheikhul Khadim suñu yaakaar sëñ Mbàkke Kajoor mooy ki nga xam ne euh, moom ak suñ Mor Anta ñoo bokk benn bàyyi mam Balla Aïcha jur leen mu maam Maharam suñ Mbàkke Kajoor nekkoon fii ci dëkk bi mu ak sëñ Mor Anta ndax dëkk bi dafa doon dëkk bu yàgg boo xamante ne nii euh, jiitu na yoonu murit ba fii yàlla def ne yoonu murit fii la bàyyi ko fii la soxi ko fa sëriñ bi fii la euh, tàmbale yoonu murit fii la ko Cheikh Ibrahima Ibrahima Fall Baboul Mouridina fekk fii la àndee ak moom ak ñi ngay déggoon ci ñi njëkk ci sëriñ bi daanaka ci lu mat ñetti téeméeri eh, cheikh yi nga xam ne ñoo njëkk ñoo njëkk ci sëriñ bi daanaka fii lañ jaaree ci Mbàkke Kajoor daara jaa ngi woon fii ci ci ginnaaw mutul maanaam 500 mètres kër gi itam mi ngi woon fii ci ginnaaw mututoon 500 foofu nag moo doon mooy Mbàkke Kajoor moo tax ñu naan Mbàkke Kajoor bu mag yi Euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara it fi la nekkoon Cheikhul Khadim moo ko fi yebaloon mu ñëw ci benn waajurum bu ñu wax suñu Amar Fall Mbacke taw suñu Mbacke Kajoor ne ko demal dëkk moom moo waral suñu Mouhamadou Lamine Bara moom Serigne Touba dëkk ak ñun nekk fii ci ndigalul bàyyam Serigne Touba waaye du ko waxoon mu dëkk ak suñu Amar Fall Mbacke moo tax moo ko moo indi woon Mbacke waaye nag dëkk bi ah Serigne Touba ci boppam moo ko jël ci jubóog Serigne Mor Jaara ci ndigalul ñi nga xamante ni ñoo siqoon suñ Mor Anta ak ñëpp daal di jël dëkk bi jox ko suñ Mbàkke jamono yooyu ndax suñ Mbàkke suñ Mor Anta Sali la àndaloon moo ko jàngal alxuraan moo ko yar moo ko def lépp mu bokk moom benn bàyyi suñ Mbàkke Kajoor it moo doonoon caatu mambala Aïcha radiyallahu anha mambala nag bi nga xamante ni yàlla def na mu jóg di saytu li nga xam ne moo doonoon yëfi mam ma xaram maam ma suñu borom doo ko joxoon daraja ak mu ne diggante jolof ba ngay jaar ba ngay jaar Ngaysing ba Mbakke Bawol ba fu ñuy wax euh, kàdd ak bëloo diggante boobu sunu borom dafa defoon maam maxar moomu suuf soosu la ko benn ci ci ñuy wax ay buuri àdduna joxoon mu moom ko léegi nag loolu moo waraloon suuf soosu yaatu loon ba mam Balla ay mi jóge fi nag daal di dem di saytu suuf soosu moo waral sax dem ba ngay singoogu des fa suñ Mbàkke gajoor moomu nag moo doon caatu mam Balla moomu moo waraloon itam suuf soosu yëpp nga doon dégg mosoon naa mujj ci loxoom ci ci kanamu Serigne Touba ak Serigne Mor Diarra waaye nekk gi ñu àndoon nekk nag ak bëggutoon dara nekk nekkal fi suñu borom ba Serigne Touba da ko daan wooye attaqiyu ba daan wax ne moom de gis na ci moom mook Serigne Mor Diarra amuñu bakkaar si diggante seen seen doomu aadama seen doomu aadama yi seen moroomu doomu aadama yi amul bakkaar seen diggante ak seen borom bi leen jur koo xamante ne nag tooñoo yàlla tooñoo euh, doomu aadama yi te dund nga daanaka lu mat euh, juróom-ñetti fukki at waa ba juróom-ñetti fukki at ak nangam kooka euh, góor yàlla la kooku nag mooy borom bis bi Sëñ Kajoor loolu nga wax muy diggante courant ak ndox ak yoon loolu lu fi xaw a manqué la lu fi xaw a sooxe la yàlla def na nag ku mel ne suñu Abdul Aziz moom suñu baara am na jéego ñu ci def ku mel ne suñu Cheikh Matili mi defoon na ci ay jéego ak suñu Abibu Mbàkke imam waaye dafa doon dëkk bi dafa doon léegi dëkk bu mag macha allah màgg na lool waaye courant bi dafa euh, dafa néew lool ba tax na sax sancaan yi amuñu courant bëggoon nañ ñu yokkal ñu courant bi ba nit ñi waroon mën a ñëw dëkk si fi waaye courant bi moo doyul ndox mi itam doyul fi ne màggal bu jotee ay seetane la ñuy ñaan ngir ndox mi ñëw fi bu dul loolu màggal gi day sooxee du ñu am ndox te xam nga ne loolu ci dëkk bu toll nii ak mbooloo mi te muy dëkk pèlerinage boo xamante ni asaa saa sune nit ñi dañ fiy daje di di di di siyaare e, di topp jeexiti sëriñ bi ak histoire bi kon dëkk bi sunu borom waroon nañoo mën a dimbale ñoo am ndox mu doy ak courant bu doy am aw yoon bëggoon nañu itam pénc mii nga gis garab gii ci sama gannaaw fii la sëriñ bi daan toog Lat Joor xisam boobu nga doon dégg moog sëriñ Tuubaa garab gii la fii la mujjee gisanteeg sëriñ Tuubaa Lat Joor jóge fi daal di dem dexeli jàmmarloog euh, tubaab bi jàkka ji sama gannaaw nga gis it sëriñ Tuubaa ci boobu moo wax ne fii la njëkk a dajeeg ku tedd ki di sangu mbindéef yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fii la ko Seydina Jibril itam njëkk a fekk jox ko bataaxel boo xamante ni da koy xebaar yónent bi ne yónent bi sallallahu alayhi ci jàkka ji sëriñ bi fi la daan defee eh, maanaam ay lawratam am na néeg bu nekk fii ci gannaaw itam sëriñ bi foofu la daan defee ay itikaafam di fi dugg xalwa fii ci gannaaw nga xam ne fii jeexilitu suñ Mor Anta Sali jeexilitu suñ Mbàkke Kajoor mi ngi fii waaw kon kon dëkk bu mel nii wax dëgg war nañu ko mën a bàyyi xel te xam ne dëkk bu mag la te moo jur dëkk yëpp mooy bu ñu naan umul xuraa bu ñu koy wax Makka wa man xawlahu mooy Mbàkke Kajoor rek mooy umul xuraa waaw ndax yu fii la yoru murid soxe ko fii la Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne mooy jàmbaari fakk tëdd ji nga xam ne murid yëpp moom la ñu roy ku sañoon sax sa tariixa wala sa kër amoom Cheikh Ibrahima fii la àndee noonu Serigne Touba. Euh, daaw nekk nañ fi di màggal mbooloo mi daje fi lool ñu jékki-jékki rek daal di fi gis ay naax yemb xam nga fii àll la bu tojul yemb foo ko gis fu ne rek xamal ne day def dankew muy day def ay ay lem te fii dëkk bi yemb yi dañoo bari lool. léegi nag loola dem nañ di màggal daaw ba ci yàgg rek yemb ji daal jékki tasaaroo ba matt fi ju bëree bëri gaañ fi ay nit ba fax nañ ne sax sànq bi ñuy waxtaan nee nañ ca ñooña daaw am na ku ci faatu ndax yemb yi sem ko ndax fii yemb yi dañoo bari ñu bëggoon nag waxoon nañ ko état bi jooy ko sous-préfet pour mu waxal ñu ko monsieur le gouverneur waxal ñu ko ci kaw nga xam ne ñooñoo ko hiérarchie ci kaw bëggoon lépp saafaraw yemb yooyu nag bu sañoon mu saafaraw balaa màggal gii di ñëw muy ñeenti fan yi gi te ñu bëgg nag ñu saafarañu ko éternellement du caagi rek màggal day ñëw ñu kër kër yi mu daal di jeex bëgg nañu itam ndox mi ñu saafara ñu ko définitivement saafara ñu courant bi sunu penc mi nga gis dafa bëri suuf oto bu dugg da ngay ndax oto oto ndax ndax yaatuwaay bi ak suuf si dafa bëri suñu sañoon itam penc mi ñu wëral ñu ko godron boo xam ne oto yi dañuy mën a dugg génn sans problème waaye loolu waaw loolu loolu waxoon nañ ko ba noppi nee nañ nattoon nañ ko ba noppi ba wax ko waaye saa su ne wax rek waaye musuñ cee musuñ cee jublu bëgg nag ngeen xam ne fii ñu nekk ci pencu Mbàkke Kajoor mooy Mbàkke gu mag gi mooy dëkk boo xam ne aussi itam Sëriñ Tuubaa da ko fonkoon lool ndax eh, yëfi yi Sëriñ Mor Anta Sali woon di yëf yi képp koo xamante ni eh, da ngaa bokk ci ëllu Mbàkke ñu bëggoon nag dëkk bi ah gouvernement bi bay bàyyiwaat ci xel ci kaw assainissement bi décentralisation bi nga xam ne dañ koy def courant bi ndox mi su ko defee itam xeeti yoon yi yooyu yëpp ñu defal ñu ko xeet yi nga xam ne aussi tam ñu ngi koy daw muy mala yi nga xam ne day gaañ nit ñi bëri nañ fi yooyu yëpp tam ñu wax état bi ñu saafaraal ñu ko te yàlla tax waaw mooy benn ci les chiens yi ñuy wax ak euh, les abeilles mooy yamb yi yooyu yëpp fi ñu toll nii ñu sonal ñu sonal waa dëkk bi lañ te loolu état ñooñu si mën a jàppale.